ci turu daayira muqaddamatul xidma di leen sant bu baax ci topp gi ngeen topp jataay yi muy jataay jàngale ak jataay yeete ak jataay laabirante ci biir jataay yooyu nag jataay bii nga xam ne moom lañu ñu jagleel laaj ak tontu te tey jii doon ñetteelub jataay bi ñu fa yéene ci ànd ak sëriñ Cheikh Bousso moom sëriñ Xasan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 wa ala alihi wa ashaabihi wa man bi ihsaan ila yawmi ddin allahuma la ilma lana illa ma allamtana nasaluka an tuallimana mimma yanfauna laqin lisaani wahlulan minhu lnuqat waj'alhu dhakiran wa shakiran abad assalaamu aleykum wa taala wa barakatuhu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu ñu fi teew ci jataay bi ak ñi koy topp ci jumtukaay yi déglukaay ñu ngi nuyoo yëkkati nuyoo yu sell yoo xam ne mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di ko jëmale ci ñëpp di ñaan li daxañ ci nuyoo boobu ci ay xewal yàlla defal ko ñëpp di ndokkeel ñëpp ci shahru ramadan al muazzam yu ñu toll mooy weeru koor wu barkeel yu mag wi rawatina fan yu tedd yi ñu tàmbali mooy al ashrul awaaxir muy fukk yu mujj yi nga xam ne bokk na ci yonent bi sa alayhi salaatu wasalaam gënoon a fonk bu masaan ñëw lépp lu mu daan def daf ko daan yokk daan sant jullit yi ak saxaaba itam ci góor lu baax di wax ne tam na ngeen di nattale laylatul xajar na koy dàkk ci guddi yu tedd yi kon ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu dafa ñu toog feex ba mañ koo màng ak galeel ñu weer wi ci anam nga gën a sell te nangu ñu suñuy yàlla di yëkkati ay ñaan ak i nuyoo yu sell di ko jëme ci kilifa gu màgg gi Cheikh Mahamadul Muntaxa di ñaan suñu borom sàmmal ñu ko bàyyi ko suñ kanam mu yàgg-yàgg ba mu àggale mboolem ay yéeneem liggéey fas yéene yéene liggéeyal sëriñ bi radiallahu taala anhu te ñu ànd ko moom ak mboolem kilifa yu topp ci ginnaawam di yëkkate ay nuyoo ki cantam di ko jëmale ci mbooloo mi nga xam ne ñoo taxawee liggéey bi muy daayeetu muxaddamatul xidma di leen sant bu baax ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal sëriñ bi ci tisaare am njàngam ak di jàppande jàpple mbokki jullit yi seen mbir ndogu ak yeneen taxawaay yu am solo yoo xam ne ñu ngi koy taxaw ci barab bu sell bii di teg ñu yooyu ci loxol suñu xarit sëriñ Afiya Buso al imaam mu jotul ñu ko mboolem ko yëngu ci liggéey bi rek ñaan yàlla di leen ci defal ndam te di ci jigéen day gën a dajeeg ngërëmul sëriñ Tuubaa kon ni ko sëriñ Seex Ahmadu Buso waxee léegi rek jotaay bi noonu lay demee incha allah jéem a tontu leen ci eh, laaj yi nga xam ne dana jóge ci yenn mbokki gëstukat yi ci laaj laaju seen mbirum diine ñu ci tontu tontu kem kàttan rek te dañ koy daan waxee rek tontu yi ci bari dañ koy sukkandiku ci alfiqhul maaliki yu ni ko sëriñ bi santaane ak yi lépp lu ci sëriñ bi jàngale tam te suñu gëstu ak jotaa ak ak rek bi ñuy tontu foofu lañ koy gën a wéer insha allahu taala ñaan yàlla defal lañu ci tawféex ci barke borom barab bi tedd bi muy Seexuna Seexul Xadiim radiyallaahu taalaa anhu wa barakaati kon bismillaahi sëriñ Seex jërëjëf sëriñ Cheikh bu Xasan ci nuyoo bu sell bi te matale kon dañuy njëkkee laaj bu jiitu mu ne ndax dagan na ci ku woor muy jëfandikoo xeeti parfum yi waaw sëriñ bi de mbirum parfum de liñ ci gën a wax mooy sib gi ñépp xam nañ ne du yàq koor sax boroom xam-xam yi wax nañ du yàq koor waaye ku ko mën a mooy tondiku daal boo waree ba ngay dog boo ko bëgg jëfandikoo nga bàyyi ba dogoo ba noppi loolu daal moo gën a lëng ci li borom xam-xam yi wax ci wàllu jëfandikoo parfum bu mën a doon kii mu ne moom ndax gone mën naa nekk imaam waaw ah, sëriñ Cheikh de gone de eh, mën naa nekk imaam de ci naafila jullit naafile waaye jullit farata moom daa bokk ci sart yiñ ci sart ka koy jiite faaw mu nekk euh, góor te doon koo xam ne mm, maanaam kàllafe na kon gone du mën a jiite jullit farata waaye nag mën naa jiite jiite jullit naafile kii mu ne lan mooy àtteeb jaay xeeti lekk yi ak xeeti naan yi ci bëccëgu weeru koor waaw sañu Cheikh de jaay yooyu ci lu ñuy lekk wala lu ñuy naan ci bëccëgu weeru koor de bu fekkee ka nga koy jaay moom am na sañ-sañu dog wala mu doon koo xam ne xëy na duggagul ci lislaam loola moom kenn terewu ko waaye nag bu fekkee ka nga koy jaay wóor na la kii woor war na ko kon amoo sañ-sañ jaay ko loolu ñuy lekk bu fekkee dangaa xam ne da koy jëfandikoo ca saasa fekkee nag ñam la woo xam ne nii xam nga ne ku ko jënd mën nga koo denc ba jamonoy dog jot nga doon ko jëfandikoo moom boobaa dara du ci nekk waaye liñ ci bëgg rek mooy sàmm war may weer wi ak bis bi nga xam ne koo xam ne am nga rux sa mën a dog it dañoo bëggoon boo koy def nga nekk ci barab boo xam ne xëy na ñu mel na yow ñoo fay nekk waaye doo fa nekkandoog ñu woor moo tax di ko feeñal pénc wala ci mbedd yi daal di jëfandiku ci kanam nit ñi bokku ci teggee ni koor loo am am ngàntul dog man ngaa dugg ci barab boo xam ne xëy na ña fay nekk ñoo yow ñooy bokk mbir wala fu làqu nga jëfandiku génnaat ngir wormaal eh, sa mbokki jullit yi nga xam dañoo woor ak wormaal bi su ci xam ne loolu la yàlla defal ruxsa bu mu la defal rek la nga sante ko loolu boo koy jëfandikoo ci wet googu jëfandikoo ko ci wàllu ay teggin kii mu ne ndax koo xam ne dafa xamut waxtu julli yi su jullee ndax ak wéram dana baax ak julleem dana baax waaw sëriñ Cheikh de waxtu julli eh, koo xam ne xamoo ko danga war a roy ku ko xam mu la koy wax ndax boo jullee te waxtu yu duggut sa julli baaxut donte da ngay sikki sàkk sax ndax ndax waxtu yu dugg na wala duggut nga julli booba ba demee ba mu wóor na bi ngay julli te waxtu yu duggoon na borom xam-xam yi dañuy wax ne julli googu du wér kon li war ci koo xam ne xamagul waxtu julli yi mooy muy déglu noddukat yi wala mu laaj ñi nga xam ne xam nañ waxtu ñu wax ko ko mu door a julli ndax rek mu nekk ci barab boo xam ne na xay na amul mënta laaj kenn wala mu nekk barab boo xam ne niñ ko misaale ci fu lëndëm foo xam ne du gis weer wi du gis jant bi wala foo xam ne masalan du xàmmee guddi gi ak bëccëg gi boobaa moom bu amul kenn kum laaj mën naa mën naa sukkandiku ci gëstoom rek la ko xel mayam xay xelam may ci ne waxtu jot na rek mu jëfandikoo loolu ni ko sëriñ Mbàkke bu sa waxee ci téeréem boobu mu tuddee yawaaqiitu salaat ne wal yajtahid wal yu axir xataa yataxaqaqa aw yagliba ala zannihi duxulul waxt fa in tabayana luquuma qabla qablahu ku mel na ci situation yi nga ci tolluwaay yu mel noonu nga tollu dangay gëstu bu baax rek teey ànd ak dal teey ba mu wóor na waxtu yu dugg na nga doog a julli boo demoon ba julli ba noppit yaa ngi sikki sàkkan waxtu dugg na rek te nga daal di am fitu jullitam julli googu mu kenn du ko nangu ndax tegoo ko ci lu wóor kon daal sëriñ Seex ku mel noonu day teeylu te gëstu bu baax rek ba xam ne waxtu dugg na wallaahi alhamdu jumtukaay yi ñi xamee waxtu léegi bare na ba yooyu mën naa am ñi muy gàll ñi muy dal dootu bare léegi ku góorgóorlu day sa mbirum diine rek ni ngay xamee waxtu julli dana yomb lool wa billaahi tawfiq koo xam ne nag dafa dem ci bisub ajuma julli ji ajuma ba ilimaan ji yéeg ci kaw bar bi mu fàttaliku ne moom kat tey ji julliwul suba mu nekkoon kon lan mooy àtteem waaw sëriñ Saade kooku day julli suba donte ilimaan ji mi kaw minbar beet day julli suba rek may may nañ ko mu julli suba li ñuy tere bu ilimaan nekkee ci kaw bar bi mooy jullig naafila jullig naafila lañ ciy tere waaye jullig farata moom bu waxtu woo ko fàttalikoo rek ak waxtu wu mën a doon rek boo àndeekul ko njàpp te barab ba nga nekk doon barab bu laab bu mën a jullee da nga koy daal di jóg fay ko te lu mel ne jullik suba gi ak jullik àjjuma gi bu fekkee benn borom julli rek la amee woon di daal dugg ci li ñuy wax yasiirul fawaid te yasiirul fawaid mooy mooy bari julli yu néew boo ko amee doo sañ a julli julli gi teew te fayoo bari julli yu néew yooyu ba noppi te xam neen ko xam ne ngi tàmbalee ci benn ba ci juróomi julli ku yor lu mat bari juróomi julli bala ngaa mën a julli julli gi teew la nga ko sañe julli da ngay jiital yooyu ba noppi kon nag bu fekkee genn julli rek moo ko rawoon muy julli suba gi donte ilimaan ji taxaw na ci gomen bat ba tàmbal xutbaat moom na ko julli rek bu noppee daal toog nag déglu ilmaan ji ba xutba ba ànd àgg mu ànd ak moom julli ko àjjuma ga wallaahul muwaffiq lis sawaab kii mu ne moom ndax dagan na ci ab jullit muy ñaanal koo xam ne ab kercee la mu koy ñaanal yërmande yàlla sëriñ Seex da ab jullit suñ te ñaanal ku gëmut yàlla njëggal ndax suñ borom subhaanahu wa taala wax na ci suuratu tawbati ne wa maa kaana linnabii wallazina aamanu an yastaxfiru lil musrikiina walaw kaanu uli qurba min di ma tabayyana lahumu annahum ashaabul jahim aaya boobu lim ci wax mooy ab jullit yonent bi sax la ko njëkk wax sañoo sañoo ko ñu topp sa ginnaaw sañu ñoo jéggalu koo xam ne nii gëmul gëmul yàlla ab ab kuy bokkaale yàlla ba gëmul yàlla sañoo koo jéggalul buy dund ak bu faatoo donte sa mbokkum jege ñaareel tam sañoo koo jéggalul aay bi saloon ci teg mooy Ibrahima xëy na doon na jéggalul baayam waaye booba daa daa jàpp woon ne dana dugg ci diine ja moo tax ma ko daan ñaanal njéggal waaye ba mu ko xoolee ba xam ne nanguwut dugg ci diine ji daf koo bàyyeek suñ borom kon Serigne Cheikh koo xam ne duggagu ci lislaam daal nañ ko ñaanal ak njub ak yeneen ñaan yoo xam ne xëy na njariñu lu àdduna la waaye ñaanal ko yërmaande yàlla ak la moom day juyoog li suñ borom dogal ne ko ku weddi ku nakk dina la bëggal ci barab boobee muy sawara wala yaasu billaah kii mu ne moom lan mooy àtteb saafoonte ci biir ay armeel joxante ay loxo ci biir armeel sëriñ Seex da joxante loxo ginnaaw boo waxee asalaamaaleykum nga jël sa loxo jox ko sa mbokkum jullit loolu dafa bokk ci yonent bi alayhi salaatu salaam santaane ci barab yu bari bokk na ci la mu ci wax sax ne ñaari jullit saa yu ñu dajee joxante loxo rek suñ borom day leen jéggal ñoom ñaar ñëpp lu jiitu ñuy tàggalikoo rek suñ borom jéggal leen seeni bàkkaar kon bokk na ci aadaab yi nga xam ne teggin yi nga xam ne yonente bi saa salaam daana ko sant saxaaba yi di ko sant mbokki jullit yi moom nag mënees na koo def ci barab yëpp ba mu des yenn barab yoo xam ne borom xam-xam wax nañ ne ku ca toll kenn du la jox loxo mënees daa bañ a nuyu sax lim nañ ca masalan kuy jàpp booy jàpp kuy jàpp jarul nuyu mën nga ko bàyyi ba mu jàpp noppi niki noonu koo xam daan na ci barab di faj aajo wala kuy lekk wala kuy jàng alxuraan kuy nodd yooyu daal lim nañ leen ci benn benn yi nga xam ne nii sañoo leen euh, jëruñoo nuyu tey jëruñoo jox loxo waaye nag nuyoo ci biir armée yi moom gisaguma fenn fu ñu yàqale ne daganut am naa liñ koy def bëriwul waaye itam euh, am naa yaakaar ne ko defit doo ci am lenn luñ la ciy topp ci yoon ndax yaxaluñ fenn ni nuyoo ci barab dañ koo tere wallaahu al-muwaffiq lis-sawaab xëy na day seetlu ne bu ñu nekkee ci armeel yi ñenn ñi duñu boo leen bëggee jox loxo dañuy lànk waaw loolu li Serigne Cheikh man xam na xay na am ah, xam yaatu na man naa am ñu am fuñ ko teg waaye ma daal benn dalil ci hadis wala alxuraan walla ci waxi borom xam-xam yi fu ñu waxee ne ku nekk ci biiri barab muy armel kenn du la jox loxo man naa am nag ñu koy def ngir xataayu barab baag ak tolluwaay ba eh, ak wolof ni ñu bindoo ku jox sa loxo morom di jàmmanteek wax xëy na yooyu lañ cay daw waaye bu fekkee jox loxo rek képp la ay wax bañ caa ànd am naa yaakaar ne mënees na koo def ci biir barab ci moo xam ci biir jumaa wala ci jàkka wala ci barab yooyu. kii mu ne ñaari baat yi la ñuy bëgg ñu leeral ko ko mooy li ñuy tuddee alquran ak lu ñuy tuddee at tamattu ci te aju ci aj mag waaw seen seex da yooyu ñaari xeeti ajin la yoo xam ne nii dañoo am ci kuy aji mag nga tànn ci genn am na ganeen sax gu ñuy wax ifraat xëy na laaju ko waaye moom xiraan la laaj ak tamaton xiraan nag mooy booy bëgg booy demee ba makk bay armal fa ngay armale fa nga yéene omra ak aj da ngay yéene fa séenément omra boole kook aj su ko defee benn armal bi doo ko boo armalee rek dootoo dindi armal ba keroo euh, ngay dem arafaat ba sànni jamra euh, door a mën a def taxallul yewiku boobu maanaam sab armal da ngay takkoog moom ba keroog ngeen di jóge arafa kooku moo def xiraan mën naa yàgg mën naa mën naa mën naa gàtt ndax fekkee dangaa teel a dem màkk xëy na mën naa doon diggante bu xaw a yàgg waaye maanaam boo demee ci màkk ci asurul xuj euh, asurul xaj yi mën naa yàgg xëy na waaye boo yeexee dem màkkaat mën naa bañ yàgg kon daal mu ngi aju ci fan ya ngay am màkk rek waaye xiraan daal mooy nga lëkkale leen ñoom ñaar lëkkale leen ci yéene ji ba nga yéenee euh, ihraam nga ne yéene na ma umra teg ci at boobaa safaak marwa benn yoon rek nga koy dox tawaaf bi te mën naa nekk kenn tawaaf muy tawaaful ifaada rek boo ko defee mën naa yóbbaale tawaaful omrati day mel na ci wàllu jëf yi ngay jëf moom ci lay gën a jàppandee kon xëy na la ci nekk ci as coon daal mooy bu fekkee teel ngaa ñëw màkka yàgg gi yàgg ak sa armal ak tënku gi ngi tënku ci armal bi mën naa mu indi lay coono ñaareel bi tam ku ko def ko ne da ngaa war a joxe hadiyu hadiyu mooy gàtt ba bu ñuy rey dalay war bu dee tamattu nag mooy da ngay ñëw def sa omra ba noppi ba mu jeex ba nga dox safa def wër kaaba ga dox safaa ak marwa ba jemp wala nga watu daldi def taxalul mooy mooy yewee ko mooy dindi sab armal sol sa yére yi nga daan sol nag a jekk boo demee nag bañ ne tey la yow mu saamin min sil xijja muy bisu juróom-ñetteel ñu koy tuddee yow mu tarwiya ci ngay armalewaat nag fa séenee tàmbali jëfi aj gi kon mooy jiital umra tamattu mooy jiital umra teg ci aj moom nag boo gisee ci boo ko seetloo nii day mel ne moo gën a am ak jàppandal ndax umra moom yàggut yooyu suur wër kaaba ga dox Safaa ak Marwa mu daal di jeex mën nga ko def ci ay waxtu yu néew su ko defee da nga mën a solaat sa yére eh, di dox na nga daan doxe ak na nga daan defee aj du la tënk ba biñ ne tey la juróom-ñett fan ci weeru tabaski wi nag nga door a armalaat doola aj kon ak jàppandi am na ci Eh, ba tax na sax xëy na suñ mbokk yi jóge ci suñu réew mi Sénégal di aji eh, am na ñu fay jànkonte ak ay coono yu bari ci wàllu armal bi ñuy taxoo eh, xëy na ñoom liñ tënk ci ma masab maliki yi moo tax ñuy def ifraad wala xiraan waaye jàpp naa ne bu ñu doon def tamattu xëy na ak waay fal dana ci am ñu bàyyi xel ne ku def tamattu tam xat yu dalay war kon geneen aj nga xam ne laaj ko muy ifraad moom mooy amal rek ngir aj nga xam ne yow daal sa sa yéene aj rek nga fa séene def doo ko booleek umra moom it am na ay sart ay sart boppam yu ci aju waaye moom boo ko defee xat yu du la war wallaahul muwaffiq li sawaab kii mu ne lan mooy atteb koo xam ne ab rakka moo ko raw ci jullit naafile weeru koor bi waaw sëriñ Seex di jullit naafile moom gu mën a doon rek ñaari rakka lañ ci bëgg nga def ko ñaari rakka yoo def rek sëlmal ba keroog ngay julli la nga bëgg julli kii nga xam ne daañoo fekk ilimaan nag ci rakkaa bu mujj bi fekk ilimaan am na benn rakkaa mu fekk ko ci mu dabe ko ci rakkaam ñaareel ba day ànd ak ilimaan bu ilimaan taaya ba sëlma la mu daal di jóg taxaw moom andi beneen rakkaa boo xam ne nii euh, mooy rakkaa ba mu fekkiwu doon faye ko ko bu ko defee daal di rukkoo sujjóot ñaari sujjóot yi mu war a sujjóot euh, daal di taaya sëlmal su ko defee nag door a dawaat ilimaan ji cee fa mu toll ci fekkee sëlmal a gu doon naafila gi jeexagut mu fekk ilimaan fa mu toll ci naafila gi ànd ak moom la ca des waaye du saña daal di sëlmal rek moom ci benn rakkaa boobu ndax loolu amul ci julli yi lu mu wittiri rek salaatul wittiri rek moom la ñuy def benn rakkaa waaye mbooloom xeeti naa fi li yëpp lu mu gàtt gàtt te la cay sunna sax mooy mu doon ñaar rakkaa ñaar rakkaa yoo def rek sëlmal andi ñaar rakkaa kon bu ñu la rawee benn rakkaa ni nga doon fay jullik falaat rek noonu ngay fay rakkaa boobu boo sëlmalee loola dab ilimaan ca rakkaa yam tolluwaat muy muy naa fi la la ca des lan mooy xaqi doom joo xam ne day liggéey ci butigu baayam waaw sëriñ Cheikh de tënk ko ci liggéeyu butigu baayam xam naa eh, li am solo daal mooy eh, nit nit ak baayam moom amal na ko ay àq yu baree baree bare yoo xam ne alxuraan àdduna ci ay yoon yi yoon bokk na ci masalan wa wassaynal insaan bi waalidayhi xusnaa sootul ankabut gis nga foofu mu ne dénk naa nit ki ay waajuram ñaari waajuram yépp ndayam ak baayam muy rafetal jëme ci ñoom am na feneen fu mu waxee tam ci suratul isra wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu bil waalidayni ihsaana suñ borom dogal nañu war koo jaamu waaye nag ñu boole ci di rafetal jëme ci ñaari waajur ak yeneen ayat quraan yu bari ak ahadis nabawi yoo xam ne nii eh, laa tu'addu wa laa tuhsaa bari na bari goo xam ne neexut takk yépp di soññee ci fonk ñaari waajur ak jox leen cër ak warmaal leen moo xam waajur wu góor la wu jigéen rawatina nag bu fekkee dangaa nekk ci liggéey boo xam ne sa waajur moo ko moom nga koy saytul kon ña fa nekk liggéey ñëpp yaa ci war a gën a góorgóorlu ngir sàmmal ko alal jooju ndax bokkoon na ci àq yi nga amee sa waajur mooy wormaal ko ak sàmmal ko alalam ginnaaw dalaay dooloo na ba yóbbu ci barab bu mel noonu nga fay liggéey kon la la war mooy nga sàmm alal jooju mu la dénk eh, di di ko fexe noo ko eh, yokkale ba nga xam ne bénéfice moom ci seen dana ko ci am te bañ caa dugal genn yàq te te nga xam ne alal joojee eh, lu dul lañ la ca fay rek moo moo ko amoo sañ-sañu lekk ko lekk ca dara te loolu sa ndigalu waajur kon daal sëriñ Cheikh kooku li ñu koy dénk rek mooy mu xam ne amaan na beneen responsabilité mooy beneen eh, masuuliya boo xam ne nii eh, baayam ajaan na ko ci moom muy alal jooju mu ko dénk mu war koo gën a sàmmal nag mu fekk si warmaal gu mu ko waroon a warmaal nag ak fonk gu mu ko waroon a fonk ak rafetal ga mu waroon a rafetal lu jiitu loolee mu koy mu koy dénk wallaahu al-muwaffiq lis-sawaab euh, ndax dagan na ci àttekat bi mu sukkandiku ci caméra de surveillance yi pour mën a mën koo jàppee comme seere ci lislaam maanaam vidéo bi nekk ci caméra bi ndax mën na ci sukkandiku jàppee ko comme seere waaw sëriñ Seex de seere dañ ciy sàtt ay sàtt yoo xam ne mënta dajee ci caméra caméra surveillance moom li man moom xay na xaadi bi muy siis bi mën na ci jàpp jëmmandikoo ci film bi ba xam yëf yi bu ci ay euh, tappale bëggee dugg mu xam ko waaye nag mënut seere moom ndax seere moom dañ ko dañ cee sàrt mu doon nit ndax dañ cee sàrt mu doon am mu am ko am xel te nekk ku maandu te nekk ku majeur te bu mu nekk jigéen ci lu du yenn atte yi nga xam ne jigéen mën na ko seere yu ci ëpp yaay yenn atte yu bare bari seere yi faw góor lay doon kon nag yooyu ginnaaw mën daje ci caméra ndax benn benn matériel rek la jumtukaay dong la kon xëy na lañ ci maanaam mooy dimbandikoo ko ci liggéey bi waaye du doy seere buñ nee bëgg baajowoo ay témoin moom faaw dañuy wut ay nit yoo xam ne ñoo koy jëmmal muy eh, lu mu leen ñaari góor walla bu dee ci mbirum sëyeeg yu dem noonu ñaari jigéen ak genn góor wallaahul muwaffiq li sawaab kii mu ne bu fekkee dañuy miiras nit nan lañuy ñuy xaymaa li mu fi bàyyi waaw ni ñu ko baaxoo xaymaa de sëriñ Seex mooy dañuy eh, woo ñoo xam ne xam nañ alal ja nam nam demee alal ju ci ci mën a doon ñu woo li ñuy tuddee expert ñoo xam ne xam nañ xeetu alal joojee valeur am bu dee oto masal ñu woo ñi yëngu ci mbirum oto ñu xayma oto bi bu dee kër woo courtier yi bu dee marchandise bu mën a doon daal ñu woññe ci yëngatu ñu xayma ko ba ne lii nangam lay jar su ko defee bind ko ci barab wala ñu wax ko ay nit kay miraas nag bu ñëwee loolu lañ koy wax ne ku marchandise mi de xaymaa nañ ko nangam mii xaymaa nañ ko nangam ba matériel bi yëpp jeex su ko defee kay miraas loolee ñu ko jox ci ay njëg moom lay kalkin séddale ko ci ña war a doon kañay miraas kenn ku ne ma jox la sëb cër ndax bu dee ay ay jumtukaay ay ay bagage te du neex kenn ku ne ngi kët jox ko nañ koy mën defee rek mooy mooy def ko soppi ko alal soppi ko xaalis su xaalis bi la ñuy nag ci ña koy ña koy donn ñu bàyyi xel foofu rek ne li ma bàyyi xel mooy ña koy xayma nan doon ñu xam loola bu ñu seet rek ku njëkk jot rek ne ko ñu war xaymaal ma lii waaye dañoo war a fexe alal ju nekk ni ma ko waxe woon léegi ñu seet ña cay yëngu xam ko ñu ñëw xayma ko te bu ñu koy xaymaa tam ñu xayma ko ci njëgam dëgg-dëgg rek li ñuy wax naan njaayu miraas xay na siiw na waaye doo gis fenn fu ñu ko yaxale ndax alal la joo xam ne ña koy miraas ña koy donn ñoom ñëpp bokk kon sañu su ko jaay kenn ci ñoom ñooñey donn ci njëg xam ne day yomb waaye nañ ko jaay njëg koo xam ne daal moom moo jaadu su ko defee nag ñay miraas ñay donn ku ci bëgg a jënd te am njëg googu ñu jaay ko bu fekkee nag kenn ñoom ñay donn mënta jënd doon koo jaay ay jàmbur fekkee mënu su koo jaay ay jàmbur tam ñu séddale leen xaalis bi ci ci ay tur rek te kenn ku ne la ñu ne la yow li nga jël nii la tollu waaye oto lañ la koy jox kee ñu ne ko li nga jël nii la toll waaye kër lañ la koy jox kee ñu ne ko li nga jël nangam la toll waaye masalan dañ ko jox ab terrain masalan daal ñun lañ koy xaymaa bu fekkee alal je nekkul alal ju yemb joo xam daa teew ñu man ko yëkkati kenn ko nañ dox la sa kon noonu lañ koy xaymaa wallaahul muwaffiq lis sawaab jërëjëf sëriñ bi mu ne lan mooy waxtu julli ajjuma waaw sëriñ saata waxtu julli ajjuma buñ delloo téere boobu sëriñ Molaay bu sa taalif tudde ko Baxyatul Musallin al Qasaa fi ahkaami salaatil jumaa ak yeneen téere sax yu mel na moom wax nañ ne waxtu mi ngi tàmbalee ci bu zawaal jotee mooy waxtu wi ñu noot tisbaar rek jant bi rëccee rek waxtu àjjuma jot na julli àjjuma jot na su ko defee nag waxtu yaatu la ndax wax na ne mën naa dem ba eh, ba xam ne buñ eh, benn rakkaar rek bokk fi julli woon eh, timis jot boobaa lay door a jeex maanaam mën naa dem ba jant bi da lang daal nga xam ne lay des ci jant bi soo xay na la fay xaj mooy benn rakkaar kepp kepp boobaa mu àjjuma ji day raw ndax benn rakka boobu dañ koy jagleel tàkkusaan waaye bu fekkee ren si waxtu lu mu néew ne mën nga faa julli ñaar rakka kon bu fekkee yenn sàrti àjjuma yeneen yi ci des daje na sañu sañ nañu julli àjjuma sàrti àjjuma nag yu bari la waxtu da cey benn rek waaye xam ngeen ko yu bare bari la yoo xam ne rawatina barab bi ñu koy defee faaw lay doon ak yeneen sàrt yi ci àjj daal sàrt yooyu daje woon na nga xam ne waxtu wa rek moom moo leen rëccoon ba jant bi bëgg a kon mën nañoo xool bu fekkee la tey jant bi soo mënees na faa julli ñaar rakka kon ñu xam ne benn rakkaa bi moomale ko ajjuma ji bu ñu noppee benn rakkaa bi ñu moomale ko takkusaan ji wallaahu muwaffiq lis-sawaab koo xam ne day bëgg a labat jigéen mu ne ndax mën na ko listixaar waaw sëriñ Seex listixaar daa bokk ci sunna yi nga xam ne saxaaba yi wax nañ ne yonent bi daa leen ko jàngal ñu leen jàngale alxuraan ñu leen jàngale faatiha ñu koy mokkal noonu leen daan jàngale euh, salaatul istixaara ku ci jublu ci mbir nga def ko door caa door song la ngay jublu sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu wax na ko sax ci yenn ci téeréem yi man mois boobu ñu mooloon te ay ndénkaane nekk ca am na fu mu koy waxee ne euh, bu fekkee la ngay bëgg a def day jëf ju daggan ndax bu dee lu war moom jërul istixaar waaye bu fekkee jëf ju daggan la mu misaal ci lu mel ne boo doon bëgg a tukki wala ngay bëgg takk soxna wala ngay bëgg jënd dara wala ngay bëgg a dara bala nga koo def na nga def listixaara mu ne li saxaar ni nga koy def mooy dangay ngay ñaar ñaari rakkaa yoo xam ne bu njëkk bi yaa ngi ci jàng fatiha ak suratul kaafiruun bu ñaareel ba nga jàng ci fatiha ak lixlaas boo sëlmalee nga jàng ñaan nga ñaan nga nga xam ne mooy duxaawul istixaara muy ñaanum istixaara nga xam ne sëriñ bi indi na ko téere ba eh, day ñaan ko xaw a gudd du neexa wax fekk lépp fii waaye ku ko soxla boo delluwaat ci téere ba da nga ko ci fekk muy ci eh, xatu ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett da ko ci fekk jàpp xatu ñetti téeméer ak juróom ñaar ba juróom-ñaar fukk ñett fa la def ñaan googee moom daal na la soo xam ne daal euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana ko santaane sëriñ bi tam bi mu ñëwee salaat na ko sant ko mboolem taalibe yi ko ci jublu ci mbir yoo xam ne nii xamoo sa xel dalagu ci wala xamoo noo cay doxe nga jiital loola door caa dugg bu dee mbir moo xam ne boo nee la moom nangam nii la mel moom moom am jërul listixaaram listixaar li ñu koy def mooy loo xam ne nii yaa ngi sikki sàkk mën naa cee dugg wala mën mën ma cee dugg te mu doon lu dagan dong bu fekkee de loo xam ne daa war ci yow moom jëlul istixaara waaw lu métti métti da koy jéem a def ci anam nga ko mën a defee bu fekkee lu dëgganut ci yow la tam muy lu araam wala lu sib kenn du ko defal istixaara kon lii mu laaj ci wàllu kuy bëgg a takk soxna nga def ci listixaara loolu luñ sopp la luñ bëgg la rawatina bu fekkee la muy bëgg a dugg leerul ci xelam wallaahu al-muwaffiq lis-sawaab kii mu ne kañ la ñuy sañ dem ba ci yàgg mu bëgg koo wàcci jëlaat keneen mu ne loolu kañ lay doon lu war ak ndax am na ay charte yu war a daje ngir nit ki mën a fase jabar ji indiwaat jeneen soxna mu wuutu ko ko waaw xam naa xëy na day junj aaya bi suñu borom ne di wax ci suratul nisaa rek di wax ne koo xam ne dangaa bëgg a way na artumus cib daal sawjin makaana sawjin xay na loolu la wax waaye eh, bu fekkee daal jublu ne dangaa yor soxna ba sàgg nga bëgg a jël beneen soxna bàyyi ki nga njëkkoon yor moom du ci ki nga jëkkoon yor moom fekk ma tëgul ñeent digal lu na nga bàyyi ci kenn ndax ab jullit sañ naa yor ñeent soxna fekkee ki ngay bëgg a takk ab ñeenteel lay doon wala am ñaareel wala ñetteel kenn tere wala ko takk ki nga koy bëgg a takk jërul nga say bàyyi ki nga ci ña nga yoroon kenn li mu wax ne kañ lañuy war nag kañ lay war war maanaam bàyyi soxna xëy na mooy fase fi mu waree fu néew a néew la nañ caa rek bu ñu ba nga xam ne nii wóor na ne sëy bi moom lor rek moo ci des lorante moo ci des boobaa moom parce que day daal di war wala nga defoon lu ñuy wax euh, al ila mooy euh, ngiñ yooyu ngiñ gi yoon ne du laal ma jotee sama soxna dara boo ko defoon ba gàpp jeex te kafaare woo moom it xam nga boobaa euh, faaw dañ leen tàggale yu mel noonu daal mooy waral nit ki war war a bàyyi soxnaam waaye bu dul loolu rek moom bàyyi sa soxna ci loolu jann la dañ koo dañ koo tere gërëmuñ ko ndax su yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ne ab xadul xalaal ilallaahi ak talaaq yàlla moom daganal na parce que waaye moom la gën a bañ ci yim daganal yépp kon euh, bala cee borom kër bi àgg ak soxnaam daal na dem ba teg ko fu wér takk seen soxna rek jërut muy bàyyi ki njëkkoon a yor bu fekkee aay bi la bëgg koo leeral nag moom aay bi la suñ borom wax mooy bu ngeen yoree soxna ba bëgg koo bàyyi jël keneen wala sax jël leen keneen dañ ko bëgg a bàyyi yàlla dogaloon ngeen jox ko alal alal joojee ngeen ko jox bu leen ci nangu dara na ngeen ko ko bàyyee wa in aratum wa in aratum istibdaala zawjin makaana zawjin ila axiri aaya bu ngeen leen joxoon lu mat xintaar sax alal ji lu mu bari bari rek fase gi nga koy bëgg a fase jërul nga koy nangu alal ja nga ko joxoon loolu la bañ jigéen jaar nga nga nga teg ko ab sart ci fase gi ne ko faaw da nga may jox fidiya da ngay jot sa bopp ma door laa fase wala da may fay li ma la joxoon ma door laa fase allahuma ndare boog soxna si boppam moo bëgg ko bàyyi mu ñëw ñaan borom kër bi ne ko dama laa bëgg jox nàngam ci alal ngir sëy bi yam fii ñu koy wax alxulon alxulon loolu moom eh, dagan na mu fekkee borom kër ba nangu na loola bu soxna sa yëkkatee alal jooy jox ko borom kër ba ak nu mën a toll moo xam toll na ne la ko joxoon wala yées na la wala ëpp na ko boobaa kon borom kër bi sañ na koo jël te bàyyi soxnaam sus waaye fekkee parce que moom jigéen ñi sabablu ko moom góor bi moo dem ba xam ne rek xëy na fase fi sës mu bëgg a fase kon mën na koo bàyyi te lépp lu mu ko defaloon ci ay saraanga mu bàyyee ko ko te sàmm seen diggante ndax euh, yàlla boole na leen ab sëy ba noppite te euh, suñu borom daa bëgg sàmm orma ji gi doon seen doxoon seen diggante nga bañ koo yàq ci anam gu mel noonu wallaahul muwaffiq li sawaab euh, jërëjëf sëriñ bi kii mu ne ndax lan moo tax lislaam tere góor muy ànd ak soxnaam bu fekkee dafa gis baax waaw sëriñ Seex de nit ki bu soxnaam tolloo ci diggante boobu muy bu gisee baax euh, dañ koy tere mu ànd ak moom ci wet googu ànd bi nag jubluñu ci mu ne ci kër gi waaye ñu ànd ak waaye mën na koy toggal na koy defal lépp ba mu ànd boobu loolu sax ñëw na ci alxuraan waaye yasaluunaka anil maxiidi qul huwa azan fa'tasilu nisaa fil maxiidi wala taqrabuhunna xataa yaturna ba aaya ba jeex foofu li mu ciy santaane mooy bi ñu wax yonent bi ne ko am ñu ñëw ñëw di la laaj de laaj luy àtte bu jigéen gisee baax mu ne ko waxal ñooñu ne ko ci soxna gis baax nang ko bul joteek moom dara euh, ba keroog muy laa muy muy deret jee jeex ba mu sangu nga door sañ a jotee ak moom euh, lim laaj nag ne luy lor yi ci mën a juddoo mooy li aay ji wax ci biir aay ji dafa àndaale xilla bi wala xikma bi mooy fa asan jooju mu wax xul huwa asan nee na loro ngi ci lor gi nag alxuraan da ko mm, yam maanaam généralisé noonu rek waxul jan lor la waaye boroom xam-xam yi am na yuñ ci indi yu bare bari yoo xam ne wax nañ ne mën naa juddoo ci jigéen ji maanaam borom kër ba ànd ak soxnaam ci waxtu bokk na ci mën naa am deret ji dootu mën a wàcc te boobaa day lor ci doon doon lor ci jigéen ñi ndax deret yooyu waroon génn bu génnut day nekk toog ci biir yaramu jigéen ji te mën na ko andi lay gàllankoor ci biir gi yaramam ba tey illa bi nga xam ne moo tax suñ borom wala ñu yonent bi saasam naal euh, takk soxna la ca jiitu mooy am njaboot te jigéen bu tolloo ci jamono yooyu moom du jamono ju mën a euh, wanew lor kon dañuy bu nekkee ci laab lay mën a wan lor kon nekk jamono yooyu ginnaaw xekkma bi nga xam ne moo ëpp solo ci ikma may takk soxna muy am ca njaboot goo xam ne dañuy doon ay ay jullit xëy na mënu ko am ci waxtu kon loolu itam beneen xekkma la ci boo xam ne ci xekkam yi tax ñu tere nit ki ànd ak boro soxnaam ci jamono yooyu ci la bokk wax nañ ne sax mën naa andil jigéen ji ay perturbation ci wàllu ay ay doxalinul yaramam daal biiru yaram daal mën na ko ci indi ay ay ay wéradi yu bare bare yoo xam ne boo delloo ci téere boobu docteur Yusuf al yi taalif indi na ci ay lor yu bare bare yoo xam ne mën naa dab jigéen ci wet googu góor gi sam te mën naa dem ba lor yooyu agsi ci moom kon daal li teggin mooy waxtu bu ci jigéen tolloo ñu bàyyi ko ba mu laab ba sangu su ko defee këram bu bëggee seq ak moom loolu seq ak moom wallaahul muwaffiq li sawaab Sëriñ Tuubaa wax ne waj'al jamiica ixwati wa nasabi fi raxmatin yowma shtidaadi nasabi mu lan la ci sëriñ bi jublu waaw loolu da li ci feeñ ci lu ci xam ndax sëriñ bi moom li mu jublu euh, néew néew nañ xam-xam ci xam ko waaye nag li ñu ci kaw bayt bi zaahirul bayt bi daal li ñu ci déggee mooy day ñaanal ñi nga xam ne seq naa ñoom ak mbokk mbokku deret ñoom lay ñaanal ci bayt woowu di ñaan ne yàlla yaa maa ngay ñaan nga defal mboolem samay mbokk ak mboolem sama askan nga defal leen yërmaande rawatina bu ñu àggee ci bis boobee nga xam ne bisu coono la muy yowmal yowma stidaadi nasabi mooy bis ba nga xam ne yowmul qiyaamati coono yi day bari lool lool ci suñ borom yërëmut muy ñaan bu ñu àggee foofu nag suñu borom defal defal yërmaande mboolem koy mbokkam mboolem koy aw askanam eh, xam naa li ñu ci mën a jàngat rek mooy sëriñ bi fonk mu fonkoon eh, lépp lu islaam santaane rek ndax lislaam moo santaane jox ko ak mbokk jox ko ak mbokk lislaam dafa ko santaane ci barab yu bare bari ci alxuraan ak ci addis te sëriñ bi moom bi mu ñëwee li mu doon def mooy yeesal lislaam rek moo tax teggin yu islaam andi woon rek da koy dundalaat yeesalaat ko ba nit ñi bàyyi ko xel di ko ca di ko dundal kon bokk na ci lim yeesal foofu jokk ak mbokk ak ñaanal say mbokk muy jëf muy jaamu yàlla bu baax koo xam ne nii lislaam santaane na ko ci barab yu bare bare kii mu ne kañ lay dagan ci ko tukki muy wàññi ak julli ak wàññi julli gi kañ lay jeex fan la ko war a bàyyee waaw sëriñ Seex wàññi julli daa bokk ci sunna yi nga xam ne ni boo dee tukki julli ñeenti rakkaa muy tisbaar ak takkusaan ak gee boo nekkee ci tukki defal nañu ruxsa nga wàññi leen julli leen ñaari rakkaa te da nga ci am tuyaaba incha allah ju toll ne da am ci boo julloo ñeenti rakkaa yi moom nag dafa am ay sart ay sart yoo xam ne fuqaha yi dañ koy tudd ci e, nit ki sañ koo faw mu am nit ki sañ koo def bokk na ca diggante bi muy tuk jóge ak ba muy jëm na nekk diggante boo xam ne e, wàññi dagan na ca ñu koy nattale ci lu mat Euh, juróom-ñett fi kilomètre ak juróom-ñeent bu matee loolu rek sañ naa wàññi bu fa muy tàmbalee wàññi te mooy bu génnee dëkk ba mu dëkk ba mu ba mu nekkoon ba muy jógee di tukki dëkk bu fa génnee ba nga xam ne dëkk bi féete na ko ginnaaw rek foofa lay tàmbalee wàññi ba keroog muy desuwaat ci foofa bu desuwaatee ba ak si foofa nag tàmbaliwaat matal su ko defee nag dañ ci sàtt tukki boobu muy tukki nag mu doon tukki boo xam ne ak mooy yàlla du ci nekk waaye fekkee kuy tukki la xam ne la muy defi ak mooy yàlla la kenn du ko may rox sa boobu kenn du sañ a wàññi mooy masalan koo xam ne nii da doon euh, da doon euh, agressé nit ñi wala mu nekk agressé boo agresseur boo xam ne nii la ko tax di génn di dem mooy bëgg sonal nit ñi nangu seen alal kooku ci mooy yàlla la nekk sëñta wàññi julli ni ki doon tam ku doon génn di jaay am ñollu ak yu mel noonu nga xam xeeti mooy yàlla yooyu daal bu mu ci mën a doon moom mu fekkee tukki ba loolu dong tax a jóg kooka du sañ a am maa jëmm ji nag nekk koy mooy yàlla ci ci ay jëfam moom loolu bokk ci boo ko waxuñu ko ci li ñu jublu mooy bu fekkee tukki bii li ko tax a jóg rek mooy mooy ca yàlla am maa joo xam ne xëy na léeg-léeg muy yàlla wala salam ko de bari na tee nag ruux sa boobu tam am na ko nag bu fekkee tukki ba mu nekk nii la ko tax a jóg dug ma yàlla moom sañ naa wàññi julli yooyu nga xam ne mooy julli ñeenti rakka yi def ko ñaari rakka ci sàtt yooyu ñu waxoon bu ca dajee te ba ci ëpp solo mooy masaafatu bi mooy distance bi nga xam ne moom lay nar a dox bu mat euh, hmm. kii moom ci alquran lay laaj ne na laaya ji suñu boroom wax ne yaa ayuha alladina aamanu inna min azwaajikum wa awlaadikum aduwan lakum mu ne laaya ji lu muy tekki waaw sëriñ Cheikh da laaya jooju muy firi ci daw rek mooy yéen ñi nga xam ne gëm ngeen bàyyi leen xel ne am na ci seen soxna yi ak seeni doom ñoo xam ne taxawaaye noonu la ñuy taxawee ci yéen ndax ni noonu di lore noonu lañ lay lore aay bu mu ngi ci sootu taxaabun mooy aay fukki ak ñeent wax nañ li ko taxawaat ci mooy jamono yi nga xam ne yonent bi alayhi salaam gàddaayu ne ñëw diina te ñu bari di gàddaay di ko fekk si dafa am ay nit yoo xam ne dañu duggoon ci lislaam bëggoon a gàddaay seeni soxna ak seeni doom taxaw na leen ne ah dugg ngeen ci lislaam dem ñu muñ ko waaye nag mënuñoo muñ ngeen gàddaay bàyyi ñu fi ñooñu itam bañ defee loolu seen seen yaram daal di seen xol daal di daw yërmaane jàpp leen ñu daal di fomm gàddaay ngeen naroon gàddaay toog toog lu yàgg dool koo def bañ ko defee nag ba leen yàlla mm, joxe joxe ba jamono may la ñu mën a gàddaay nag ñëw fekk fekk ñëw Madina fekk fi saxaaba yi fekk ñu leen lu baree bari gën leen a xam lislaam ñu rëcc lool seen yeex a gàddaay googu ba ñu rëccoo nag fa séeni jëflanteek seen njaboot googu leen tere woon gàddaay suñ borom nag wàcc aaya bi ne leen nag dëgg la bàyyi leen xel ne ñi la jege dëgg dëgg am na ci ñoo xam ne mën nañ laa yàqal waaye nag yow jéggaleel rek boo demee ba weesu loolu tam na nga jéggale wa an taafu watasuu moo gën ngeen di fayonteeg ñoom ñu mën caa déggale daal ne njaboot daal mën naa gàllankoor kilifa njaboot ga bañ dox diggante ak moom ci yenn xeeti jaamu yàlla yi lañ ciy santaane rek mooy nga góor góorgóorlu ba lépp lu la yàlla sant moom bu sa njaboot dox sa diggante nga def loola ak loo leen bëgg-bëgg ak loo am am ñoom ci yërmande na nga jiital bëgg-bëggu suñu borom seeni bëgg-bëgg wallaahul muwaffiq li sawaab euh, kii mu ne ndax dagan na ci ab jullit mu lekk ginaar yi nga xam ne dañ koy rendee ci ay appareil ki machine comme ni nga xam ne yenn societé noonu la ñuy def waaw dagan na dara yëmul ci ganaar sax mboolem lu ñuy rend rek bu fekkee ka ko rendi ci ahlul kitaab la bokk ahlul kitaab mooy ñi nga xam ne yahud yi wala nasraan yi ñooñu suñu borom subhanahu wa taala dafa daganal ci ñun ñu takk seeni jigéen daganal ci ñun tam ñu lekk seeni ñam wa taamul la sina utul kitaaba xillun lakum ñamu ñi nga xam ne ahlul kitaab lañ dagan nañ ci yeen te ñam yooyu loolu ci la bokk kon moom bu ñu koy rendi moo xam anam bu ñu ko mën a rendee rek ñoom bu fekkee aw rendeen la ci ñoom ñoom dàpp nañu seen diine may ne ñu rendee noonu rek ñun sañ nañu jëfandikoo loola loolu sax faqih bu ñuy wax ibnul arabi wax na ko ci benn téereem ci ahkaamul quran ne maanaam e, laaj mas nañ koo laaj laaj bu mel noonu mu leen naam li annaha taamuhum wa taamu ruhbaanihim mooy seenu ñam te mooy ñam wi seeni làbbe di lekk kon nag dagan nañu ni ñu lekk ko ndax Yàlla moo ñu defal ruxsa boobu ñu mën a jëfandikoo seenu ñam ñu bàyyi xel rek ne eh, xeetu ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla dañuy kuréel yu bare bare am na ci ñoo xam ne ñu gëmuñu gëmuñu duñu ahlul kitaab ñu leen daal wax ay communiste ak ñu mel noonu ñoom lu ñu rendi kenn sañu koo lekk waaye bu la wóoree ne nii la ko ña ko rend moo xam jumtukaay bu ñu ko mën a rendee ay ay catholique lañ wala ñu ay juif sañ ngaa lekk eh, loolee jóge ci ñoom wallaahul muwaffiq li sawaab euh, kii nee na ñett ñi nga xam ne duñu dugg aljanna ñett ñooñu ñooy ñan waaw sëriñ Seex de loolu euh, daa am addis yu bari ci rot mën nañ ci tudd ñaari addis yoo xam ne lim na ñetti xeeti nit yoo xam ne duñ dugg àjjana ba ci ba ci bu njëkk bu mooy euh, daa daa wax ne laa tadxulul jannata mudminul xamri wa qaati'ur ruxum wa musaddiqun bis sixar maanaam kuy koo xam ne day jëfandikoo ñool fu mu toll jégal ma ci baat bi mooy ab solaar ak koo xam ne day dog ak mbokk day dog ak mbokk koo xam ne nii ak koo xam ne diggal day dëggal njabaraankat yi leen gëm jàpp na li ñuy wax dëgg la ñett ñooñu nee na duñ dugg àjjana borom xam ne ni ñu ko firee mooy duñ dugg àjjana ci saasa ndax ab jullit bu leen mooy yàlla suñ borom mën na ko dugal sawara bu ko jéggalul mbugal ko lu toll ne lam doon mooy yàlla mooy mbugal ko mu toll noona bu jeexee nag mu génne ko dugal ko àjjana waaye daal kuréel boobu moom euh, buñ tuubut ba faatu ca loola yonent bi alayhi salaatu wax na ne duñ dugg àjjana ca suñ borom mën na leen dugal sawara mbugal leen lu toll ne la ko soob ci mbugal leen ko euh, ba ker mu leen di génne foofee beneen addis bi indi lu moom tam waxaan beneen addis boo xam ne lu mel noonu la indi waaye dafa wax ne moom euh, salaasatu laa yadxuluuna aljanna tudd ca eh, kuy eh, mooy ñaari waajuram al aqu li waalidayhi tudd ca koo xam ne tam addayus lañ ko wax ci loxo arab yi mooy koo xam ne nii daal eh, dafa dafa féex ba nga xam ne amul soxla ci kuy dugg këram ak fay génn amul soxla ci kuy jaxa jaxasoog ay soxnaam ak i doomam yu jigéen bàyyiwu leen xel daal day bàyyi kenn ku ne dafa ñëw di dugg seen biir def lu ko neex te te loolu du ko naqarlu du ko du ko du ko muy addayuus ka ko ñetteel mooy koo xam ne nii eh, day nurul jigéen juy nurul lu jigéen góor jigéen joo xam ne day sol col kay góor di yor comportement góor ñooñu wax na ne ñoom it duñ dugg àjjana eh, waaye ni ñu ko waxee woon mooy eh, ku ci tuubul bu faatu ci loola doo mën a dugg àjjana ci saasa saasa faaw suñ borom dana dugal sawara mbugal la ku toll ne mooy yàlla googu nga doon def kon nag muy ay tëkk yoo xam ne nii. dañ koy xamal nit ñi rek ngir euh, mu man koo moytu ndax sawara moom wala yaasu billaa loo fa jaar lu mu gàtt gàtt rek tar na taraay woo xam ne ni mën na laa fàtteel mboolem bànneex ba ma sonal ci àdduna benn seconde boo fa jaar am ko fa rek mën na laa fàtteelu bànneex ba ma sa dund ci àdduna kon nag lu fay dugal nit rek lu mat a moytu la lu mat a daw la wallaahu al-muwaffiq la sawaab mm-hmm. euh, kii mu ne ndax am na ay yoon yu ñu mën a jaar ngir mën a jëflante ak banque yi te duñu dugg ci riba waaw sëriñ Seex de banque yi moom li ci ëpp seeni jëflante ribaa da ciy dugg moo ci ëpp ndax ñoom ci alal la ñuy liggéey xaalis lañuy ñuy liggéey te eh, xaalis boobu ñuy liggéey dañ ci bëgg a am lu ñu ciy gane waaye nag teewul am na yenn façon jëflante yoo xam ne mas na ko jëflante ak banque te mucc ci riba ndax boo muccee ci riba ba rek yow la neen la ci topp du la ci fekk am na jëflante yoo xam ne nii lu ma nekk ubbi compte épargne boo xam ne dangay ngay denc rek saa yoo soxlaa ñëw jël du amul benn intérêt bu ñu la ci tegal loolu dara newu ci fekkee compte moom da ko ubbi rek ngir denc ko si xaalis saa yoo ñëwee am ngay jël nga jël ko bu jeexee mu jeex waaye duñ la ci benn intérêt loolu dagan na ci banque bokk na ci li ci dagantam lu ñu ñoo xam ne ñu ko jëlee ci fiqul islaam yi ci muamalaat maaliye yi ci fiqul islaam yi muy jëflante ci wàllu alal ci wàllu lislaam am na jëflante bu ñu daan wax almuraabaxa almuraabaxa xeet njaayin la woo xam ne nii yow mi bëgg a jënd amoo loo jënd moo kii kii dalay jëndal marchandise mi lebal la ko moom day jël engagement dem jënd marchandise mi ñëw lebal la ko yow am na banque yoo xam ne taamul nañ jëflante ci wet googu nga xam ne boo demee waxtaan ak ñoom ñu signé ñoom contrat dañ lay wax loo bëgg ci xeeti matériel ñu dem jëlal la ko en euh, en charge la koy euh, jox libéré la ko su ko defee yow nga seq banque bi ñoom ñu fay commerçant ba directement ñoom ñoom dañu fay commerçant ba la la marchandise may jar yow nag nga leen di fay bor bi yow nga koy fay banque bi loolu buñ ko dëppaleeg muraa ba xamal nañu ànd ba tey bokk na ci muamalaat yi nga xam ne banque yi ñu ngi koy jëfalante ba tey li ñuy wax almudaaraba almudaaraba euh, xeetu jëfalante la ci alal woo xam ne nii nit ki day capital am xal am alal seet ñoo xam ne wala kenn ku bëgg a liggéey wala mbooloo mu bëgg a liggéey mu jox leen ko ne leen dem leen yaxantu ci yëngutu ci bu ngeen amee bénéfice delloo si capital bi te bénéfice boobu ñu séddoo ko ci anam guñ dëppoo ñoom moom borom alal ji ak ñi muy liggéeyloo ñooy seet anam guñ dëppoo pourcentage bi ñu ci a am rek mooy leen nangu ngeen ci am waaye capital bi moom borom alal ji moo koy moom loolu tam banque dañ koy def ci wàllu jëflante boo xam ne dëppoo na ak lislaam kon daal euh, xëy na banque yi sukkandiku ci lislaam bareegul waaye nag mu ngi tàmbali am mu ngi tàmbali am dëkk bii ñu ne rek muy Touba almahrusa am nañu fi commencé ubbi ay ay furo euh, ay bànqaas yoo xam ne ci wàll googu dañ ci jëflanteeg nit ñi ñu koy tudde al bunukul islaamiya kon képp koo xam ne bëgg nga sa jëflante nga teg ko ci lislaam mën ngaa dem ci banque yooyu waxtaan ak ñoom ba xam buñ la waxee anam yooyu ñu jëflante ci mu dëppook lislaam nga mën caa jëflanteeg ñoom waaye daal ñu bàyyi xel ne moom jëflante ak banque bi ci wàllu goo xam ne riba da ciy juddoo moom mënta dagan ak ni ñu ko mën a tudde rek wallaahu al-muwaffiq lis-sawaab kii mu ne laaya ji suñu borom wax ne yawma yaquulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid mu ne laaya ji lu muy teg waaw laaya ji sëriñ Seex mi ngi ci sootu xaaf eh, mooy laaya juróom fanweer gi foofu day mel ne suñu borom day wax ak sawara bu ca dugalee buñ ca dugalee ñu baree bari nag mu wëlbati ko du ko laaj li eh, ko laaj ndax eh, fees nga xalim talaati ndax fees nga ne sawara day tontu ne ko xal min mazid mooy feesaguma boo amee loo ci bëgg a dolli mën koo cee dolli muy wane ne sawara yaatu gum yaatu ak man gu mën a jël mboolem xeeti yéefar yi ak mooy kat yàlla yi lu ñu bari bari rek mën nañu dugg ci sawara te du fees ba am na ci addis bu ñëw sax ne eh, bu yàlla dugalee ñu mooy ñëpp ak yéefar yëpp ba sawara fee ba ba ñëpp jeex sax tu tee sawara des ay barab yoo xam ne eh, am na ñu fa xaj nee na boobaa suñu borom subhanahu jëfandikoo kàttanam ba sawara daal di lemo ñu wax ne da ciy teg teg ndëggoom sawara daal nga ngëbu ba nga xam ne dara dootu ci xaj kon Serigne Cheikh aaya bi daal li ñu wane ne mooy tiitaale ngi nekk ak sawara yaatu gum yaatu ak la fa xaj lépp ci moo moo lam ñi mooy yàlla ak yéfar yi lu ñu bari bari ci àdduna rek xaj nañ fa eh, borom xam ne wax nañ ne wax ji ndax day wax ak sawara jëxëran sawara suñu borom di ko wax muy tontu loolu yombul ma lu mën a nekk la ndax suñu borom moom mën naa wax ak ko sopp ci mbindeef mi am ñu ne tamsil la maanaam da koy misaal rek ci misaal wane ne sawara yaatu gum yaatu ba mën a jël ñépp moom lay misaal foofu ba ba wax mm, bu ko laajee ne ko ndax fees nga danaan ko am boo bëggee am ndolleen mën naa jël ñeneen dolli ko ci ñi fi nekk walla iyaazu billaah kii nee na mooy lan mooy àtteeb koo xam ne bi jàpp di jot fekk na mu amee janaaba te sanguwut ndax mën naa xëy woor waaw mën naa xëy woor de ndax janaaba ji moom yàqul koor bu fekkee janaaba bi ba muy génn fekk na euh, génnewu ko ci coobareel boppam donte daw nelaw ci bëccëgu koor gi gént sax loolu yàqul koor yàqul kooram sàkkantumaa nag fekkee janaaba ca guddi ga la génnoon lu jiitu muy jàpp kon bu xëyee li ñu koy sant rek mooy mu daal di sangu te fekkee jullee gu doon suba mu daal di julli suba ndax balaa mën a julli suba faaw mu laab waaye jotewut ak koor gi dara wallaahu al-muwaffiq as-sawaab ndax ilimaan mën naa julli di toog jiite nit ñi di toog waaw sëriñ Cheikh de ilimaan dañ ciy sàtt mu mën a jooxe ponk yépp bañ a am ngàntu ci mën a joxe ponk yëpp te bu fekkee togg gi muy toog ngànd ko ko yóbbee kon du mën a jiite ñoo xam dañuy taxaw borom xali sax mu ngi koy wax naan wa bi aajisin an ruknin eh, illaa ka illaa ka illaa ka aidin mislihi fajaisun daa wax ne ku lot ci ponk julli bu mu ci ma doon boo boo xam ne mënoo koo def rek sañoo doon ilimaan mu mel ne kuy toog bëgg a jiite ñuy taxaw du ko man ñoom yi mën a jiite mooy ñoo xam ne dañuy dañuy toog ne moom su ko defee leen jiite waaye du sañee jiite ñuy taxaw ñoo xam ne ni moom toog rek la mën te ñoom ñu mën a taxaw euh, xanaa li ñuy wax daal mooy fekkee ilimaan bi bi tàmbali julli gi naa taxaw xëy na bañ demee ba ca biir da ko ngànt dab loo xam ne mënatu taxaw mu toog boobaa fuqahaa yi dañuy wax ne moom ñu topp ci am nañ taxaw ñoom te moom moomee mu toog àggale julli ga kon mën nañu àggale julli gi toogaayam boobu ndax liñ ci tegtaloo mooy liñ ci tegtaloo mooy addis boobu nga xam ne bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci bisam yu mujj ci àdduna eh, am na bis muy jiite saxaaba yi eh, booba daa toogoon lañ wax saxaaba yi ne ci biir eh, jàkka ji di julli di roy ci julleem googee te moom ñoom dañoo taxawoon moom toog ñu gis ci nekkoon bu fekkee ngànta ko waral sañ naa toog ne topp ci ginnaawam di julli waaye fekkee daal dara xewut nga xam ne Euh, moom daa mënta taxaw ba noppi ñee mën a taxaw am ci ku mën a jiite kon kookee mën a jiite ma taxaw mooy dem taxaw jiite mbooloo ma te moom mu toog roy roy na ñëpp wallaahul muwaffiq li sawaab kii mu ne ndax bu ñu noddee suba kenn am na sañ-sañu bi naafila waaw sëriñ Seex de bu ñu xasee noddu noddu gu njëkk lañ ko noddu gu mujj gi noddu gu mujj gi bu ñu xasee noddu moom naafila kenn sañatu ko faa def ndare ñaari rakkaay yooyu ñu julli tudde ko salaatul fajri muy raxiiba raxiiba boobu moom mënees na ko dugal ci diggante boobu mooy buñ noddee nodd gu mujj gi ba ba ñuy taxawal jullik suba gi nga julli ñaari rakkaay yoo xam ne woyof lay doon daal toog nag taaxeerlu ba bañ taxawal julli nga xam ne imaam di julli kon waxtu woowu du waxtu wu naafi la ndare nga yoroon dog boo xam da nga ko daan julli te yàlla dogal julli woo ko bis sàngam ba waxtu woo jot bañ nodd nodd gu mujj gi kon bu fekkee julli yooyu nga bëgg a julli xaj na ci diggante boobu balaa balaa moxtaaroon suuba may jeex kon sañ nga ko fa julli moom sëriñ bi sax wax na ko jawharu nafis wax ne wa ba'da subhin li tuluu'i shamsi kuriha naflun laa xadaa'ul mansi wa ba'da asrin li salaati al-maghribi wa ba'da fajrin da kulli aribi laakin isaa xalaba aynahu lkara mu wax ne ku yor ab dog boo xam ne defoo ko woon bañ nodd nodd ko mu gi eh, nga xam ne dangaa nelaw woon wala daal am na loolu gàllankoor ba dog ba mooy dog mooy julli goo daan julli naka jekk ci guddi gi yaa guddi googu julli ko waxtu woo jot mën nga faa xajal la fa xat nga def ko fa fekk yow doo nga toog di julli moom xëy na da nga maa julli la nga bëgg julli lépp balaa muxtaar mee jeex waaye fekkee ci foo xam dañ lay jiite nag ci jàkk wala jumaa moom xay na la nga fa mën a julli mooy ba feek ñuy laqaam rek bu ñu xasee liqaam moom mm, dootoo sañ a naafila bu ñu xasee liqaam dañoo wax ne bu ñu xasee liqaam jullit farata moom naafila ko woo doon maa def rek da koy bàyyi itam ànd ak jullit farata ga allahumma na rek nga tàmbali ak naafila boobaa da ngay gaaw àggale benn rakkaate daal di sëlmal dem fekk ilimaan ci euh, mu ne ndax dagan na ci ab jullit mu takk ab chrétien maanaam jigéen joo xam ne ci diine nasaraan la nekk waaw dagan mu takk ko de ndax kitaabiyeel siba ama rek mooy ahlul kitaab moo xam ab chrétien la wala juif comme ci maa doon rek dagan na ab jullit takk takk jigéen ñi jigéen jooju ndax alxuraan sax yaxal na ko wal muxsanaatu min allazina utul kitaab ñi nga xam ne sangewu nañ dañoo bëgg na booy takk ci ñoom nga takk ci nit ñu baax ñi nga xam ne daal du siiwuñu mooy yàlla ci wet googu ñu sangewu nañ ñu téye seen bopp ñooñu booy tànn soxna ci eh, xeeti yooyu nga xam ne gëma ko dugg dugguñ ci lislaam te nekk ay ahlul kitaab eh, na nga tànn ci ñu mel noonu sax nga caa tànn eh, ba ñeent sax boo neexee tànn tànn ñeent soxna yor leen boo neexee tam yor ab jullit boole ak ñooña kon daal jullit bu góor am na sañ-sañu takk jullit bu maanaam ahlul kitaab boo xam ne duggagu ci lislaam moo xam ab juif la wala moo xam catholique la waaye nag bu fekkee jigéen la joxam ne amul jenn diine lu ma ne communiste yeeg ñu mel noonu nga xam gëmuñu dara kenn sañu leen takk góor euh, jigéenu jullitam kenn sañu ko may góor gu gëmul yàlla góor gu nekk jullit loolu wax sa boobu góor lañ ko defal waaye mayuñu ko jigéeni jullit ñu koy may borom kër boo xam ne dugg duggagoo ci lislaam faaw bëggee takk jigéeni jullit day tuub ba noppi tuub wóor ñu door koo may soxna soosa wallaahu muwaffiq li sawaab kii mu ne lan mooy waxtu wi nga xam ne moom lañu tànn ngir ñu def ci wirdul maaxuuj ak ndax kii wirdu mën naa dem ba ci digg bi mu dagg ko wax ay wax door a dellusiwaat àggale ko. waaw Serigne Cheikh de laaj boobu mas nañ ko laaj ku tedd ki radiyallahu taala mu waxoon ne euh, waxtu yi. day am lu ñu tudde muxtaar ak ak daroor yi muy wax wérd wérd nee na wérdu ak mboolem xeet tudd yàlla yi dañuy am waxtu woo xam ne muxtaar lañ koy tudde ak daroor yi mu ne wut bu dee wérdu moom waxtu waxtu muxtaar yi mooy bu fajar xaree fajar dëgg-dëgg bu jotee ba sawaal di jot ba sawaal di jot loolu mooy waxtoom dëgg-dëgg saa yoo fi defee wérdu wérd def nga ko ci waxtoom lay muxtaar ma nag mooy mu tàmbalee ci bu fajar xaree ba yoor yoor foofu la muxtaar mi yem nga xam ne day seetlu na ko moo gën a yaatu muxtaarum suba ndax suba moom jullit suba bu jant fenkee rek muxtaar mi daroor yi sax jeex na sàkkantuwaa muxtaar mi waaye wirdu moom nee na muxtaar mi dem na ba ca yoor yoor ba bu yoor yoor yootee nag la fa tàmbalee ba ba ba ñu noddu tisbaar loolu daroor yu la boo ko fa defee def nga ko ci waxtoom bu yooyu jàllee nag da koy da koy fay maanaam waa neen waxtu woo ko def wirdu woowu waxtu lay doon kon loolu mooy muxtaar mi ci suba gi bu dee ci ci ngoon gi tam am na muxtaar muxtaaru ngoon gi tam mooy bu tàkkusaan jotee ba ba gee diggante boobu muxtaarum wérdu la euh, saa yoo ci wérdoo baax na donte nag sësale ko ci julli tàkkusaan gi moo gën waaye boo amee ngànt ba mënoo wérdu ba ba ba jant soo ba tiisu noppi mën ngaa wérdo te xam ne def nga ko ci waxtoom boo demee ba gee jot nag ci wérdoo woo moom booba daruur yi moo fa des teewut boo ko defee du doon ak fay daroor yu lay nekk waaye nag bu ñu demee ba fajal xar nag moom jeex na tàkk boo ko defee te fay lay doon te wirdu bu la faatee danga ko war a fay ni ko boroom xam-xam yi tasawuf waxee wirdu boo ko xasee warlu boo ko defut ci waxtoom it faaw da nga koy fay amaa lim laaj ci eh, ndax eh, sañ naa waxtam mas nañu ko laaj sëriñ bi radiallahu taala anhu mu waxoon ne sëñ cee wax boo xasee tàmbali wirdu yi moom sañoo koo dagg di wax donte sa waajur sax mooy wax ak yow bu fekkee eh, boo ko tontuwul ñàkk tontu ko yenn ngaan bi fi jógee kon da ngay àggale sa war da ba nag doo ko tontu bu fekkee nag li ñu lay laaj boo tontuwu ci saa si mën naa andi ngaan mu ne kon da ngay te dog wirdu bi ngay dog wirdu tontu ki lay laaj moo xam sa waajur la wala keneen ku mën a doon eh, boo ko tontoo la nga koy tontu ba nag tàmbaliwaat wirdu kon da ngay tàmm nga bàyyi xel ne kon boo waxee ci biir wirdu bi mu faaw da koy tàmbaliwaat wax gi sax sa ñëw koo def lu lu lu mënta ñàkk lu mënta ñàkk rek moo la war a tax wax te boo ko defee itam faaw da ngay tàmbulaaw réeru fam fam tàmbulee wallaahu muwaffiq li sawaab kii mu ne lan mooy atteb jullit boo xam ne day gam-gamle soxnaam ak yaayam waaw loolu de sëriñ Seex eh, day def kenn ku ne ci ñoom am na àqi boppam muy yaay dafa am àq ci doomam soxna tam am àq ci boroom këram euh, moom moom moom moom mu jëm jooju mu war a sàmm ñaari àq yëpp war naa sàmm àqi waajuram te moo jiitu nag àqi waajur daa jiitu ndax yonente bi aleyhi salaatu wasalaam am na ku ma sa ñëw laaj ko ne ko kan moo gën a jaadu ci man ci samay àq man axaqu naasi bi suñu suñu soxbat yi mu ne ko ummuka mu dellu laajal ko mooy mooy sa yaay sa waajur wu jigéen moo gën a am san sañ ci àq yépp ci yow ku am àq ci yow rek si waajur wu jigéen moo jiitu mu laajal ko ku mu ne ko sa ba tey mu laajal ko ñetti yoon mu ne ba tey sa yaay ci yoonu ñeenteel la ko doon wax sa baay ñu gisee ne kon àq waajur wu jigéen moo jiitu ci mboolem àq yi teewul nag sa soxna tam ameel nga ko àq yoo xam ne nii moom it da nga ko war a wormaal jox ko ko mooy ni ko ni ko alxaan tënk rek waa ansiruhunna wu maaruf na ngeen ànd nag ñoom ci njekk ak teraanga te loolu mooy lu war a ci sa sa digganteek moom ci wàllu ab dundal ak dund ak dëkk ak yépp nga féete ko fa ak yërëm ko ak di ko aar waaye nag bu mu dox sa digganteeg sa waajuru jigéen ba tax nga ko di koy sabantal wala di ko ñàkkal fayda loolu boo ko defee bàkkaar bu rëy nga ci jëlee boo xam ne nii eh, bàyyi woon soxna sama dem sax mooy ki gën ci yow bu tax tax ñu ne sëy ba day tas nag ndax ñoom jotewut ak sëy bi dara waaye boo ko defee daal xam xamal nga ne am nga ci bàkkaar bu rëy rëy ndax suñ borom dafa waxoon ne sa waajur bu ko wax baatu fin sax uff baat bu gàtt la boo xam ne xeetu ñàkk ab ab yar lay nuru waaye bu ko kenn wax waajuram kon nag rawatina bu fekkee da ngay jël sa soxna wala keneen da ko teg sa kaw sa kaw waajur rawatina sa sa yaay boo ko defee def nga lu juyoog lislaam loo xam ne tere nañ la ko tey da nga ko tuub te fas yéene koo bàyyi te waxtaan ak soxna sose xamal ko ne ko lu ma la fonk-fonk rek sama waajur bi àq ma jiitu ci man ndax bi moo fi nekkee ba bëgg ay ñëw ma la takk si moom la sababoo kon nag moo la jiitu ci man kon nag mënoo ñëw rek ma teg ma teg la kaw sa sa ci kawam wallaahul muwaffiq sawaab kii mu ne ndax am na ay at yoo xam ne dañ naan at sàngam yii kat su ki tawat bu ko amee da ko war a fay walla at yi amul limite waaw bu fekkee sëriñ sax dañuy jublu maanaam ku tawat ndax nangami at maanaam dañ koy tënk ci at déedéet fekk tawat ji ànd naag moom rek am na sañ-sañum dog fekk tawat ji jeexagut rek am na sañ-sañum dog bu fekkee yàlla la mu dem ba wér mu fay ko mu fay bis yooyee mu dogoon ci koor googee donte ay at lu bari bari itam da koy fay nag moom fekkee tawat jo tawat la joo xam ne nii nag daa taxaw moom nga xam ne moom amatul yaakaar dana wér boobaatum day dog rek nag bu fekkee tawat ji àgg na ci mënu koo boole koor ndax tawat ji tax nit ki sañ a dog tam du saageen tawat jóg rek nit ki dogal ko koor day doon tawat joo xam ne dafa diis ci moom ba nga xam ne bu ko boolee koor mën naa mu yéex a wér wala tawat ja yokk wala docteur yi xamal ko ne ko docteur bu wér bu gëm yàlla xamal ko ne ko tawat yi la dalle boo ko boolee koor dana ko yokk boobaa kon am na sañ-sañu dog bu amee yaakaar ne tawat ji dina ma seweri mu bàyyi ba wér fay fay bis yooyee mu dogoon bu naagoon nag ne tawat ji dootu wér boobaa nag day def li ñuy wax fidiya fidiya mooy jot bis bu set rek bu mu waroon a woor mu génne eh, mu génne lu mel ne saa wa nisf eh, jox ko am miskin sarax leen ko su ko defee koor gi wàcc na ko wallaahu al muwaffiq as-sawaab kii mu ne ndax jigéen joo xam ne day foo ak boroom këram ci bëccëgu weeru koor mu ne ndax sangu farata da koy war walla déet ndees bu fekkee ci loolu rek lay am de sangu farata du ko war ndax sangu farata mu ngi waree ci janaa ba janaa ba mooy man yu mu génne ci góor wala jigéen ju ànd ak boroom këram lu ànd ba lu mu gàtt gàtt rek sangu da ci daal di war moom wala bu dee jigéen mu gis baax moo xam dereti mbërëg la wala dereti wasin ba mu jeex boobaa sangu da koy war waaye lii mu laaj moom euh, sangu du ca war sangu du ca war xëy na bu fekkee dara génn na ci moom loolu sobelee doon def raxas ko rek te jëm jàpp bëggee julli mu da mu julli waaye sangu waru ci sangu daal sëriñ Cheikh li koy waral mooy janaaba wala damul xaydi wala damul nifaas wallaahu muwaffiq lis-sawaab mu ne ndax ki woor mën naa continuer koor gi ba guddi ndax li yàlla wax ne summa atimmu siyaama ila layl waaw ila layl jooju sëriñ sax mooy da ngay woor ba mu wóor ni jant sona ma réex nga door sañu dog waaye booy werante jant soo nag sowul rek boo dogee sa koor yàqu na te sax wax na ne da nga war a def kafaara bala ngaa dog daal da nga nekk ba mu wóor na jant sona bu xasee sona ak moom ba guddi gi lu ci dégg lu mu néew néew rek booba dog day daal di war ndax teel a dog tam dafa bokk ci sunna yi daa bokk sunna yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam sunnaa loolu na ko mooy di teel dog bu la wëroon jant sona ak di yeex a xadd euh, balaa jàppa jot ñaar yooyu dañ ko sunnaal kon summa atimu siyaama ila layli mooy na ngeen àggale koor gi ba jant so waaye fekk am na lu des jant bi rek boobaa dog jotagut aw jant bi day dem ba ne man yax ba kenn gisatut ci moom dara dara nga doora a dog kii mu ne ndax dagan na ñuy liqaam ci biiru oto waaw dafa mel ne dane iqaamatu salaati fekkee dafay jublu julli julli ci biir oto fekkee loolu la bëgg a wax julli ci biir oto moom suñ e, koy mayee fu néew lay doon e, mooy am na ñaari sartal sart yoo xam ne bu dajee ñaari mbir yoo xam ne bu amee xay na nit ki may nañ ko mu julli ci biir oto ba bokk na ca bu fekkee wóor na ko ne maanaam waxtu julli wi euh, du feeg muy wàcc oto ba mën balaa wàcc oto bi waxtu julli dana jeex bu ragalee ne balaa wàcc waxtu wu jeex boobaa wax nañ ne mën naa julli ci biir oto boobee waaye bu ko wëree ne fa jëm wala boog oto mën na ko taxawal wàcc julli kon day wàcc day taxawal oto wàcc julli wala mu dem ba àgg fa jëm julli ñaareel ba mooy fekkee moom mënta wàcc xëy na ku tawaat la koo xam ne àgg na wax mënta wàcc ci oto bi kooku moom na jul ci biir oto boobu waaye bu boobaa dañuy dañuy sant léegi mu jublu xibla benn ñu oto bi xibla moom mu jublu xibla waaye daal eh, bu bu du wéri moom faaw fexe ba jublu xibla ak noonu ko mën a nag daal di julli julli googee xëy na du mën taxaw di rukkoo ka sujjóot ni mu ko daan defee waaye day taxaw day toog di junj julli di ko junj bu dee naa naafile nag moom wax na ne dagan na mu def ko ci eh, daaba ju mën a war moo xam daaba oto la moo xam jeneen daaba la sañ naa naafila ci loola mu war wallaahu muwaffiq li sawaab euh, kii nee na moom ndax dagan na ci ab jullit muy liggéey ci usine boo xam dañ fay defaree sàngara sëriñ Seex de loolu du dagan ndax sàngara yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw bi ko alxuraan araamalee ci aayaat yu bari wala ci aayaat yu leer nañ yonent bi saa sam da caa tegoon ne yàlla rëbb na kuy yëngu ci mbirum sàngara ba tudd ci lu mat fukki nit yoo xam ne yàlla de di boole ci rëbb googee boole woon na ci ki koy nal mooy ki koy liggéey ak ki koy nallu ñaar yooyu euh, mooy ki nga xam ne day liggéey ki koy koy nal mooy mën nañ ko tudde borom usine bi borom usine bi liggéey bi liggéey ñollu euh, kooku yàlla rëbb na ko mooy li muy def araam na ka koy kañ koy nalloo mooy kii ci liggéey ouvrier bi nga xam ne dañ ko jël muy liggéey ci usine bu mel noonu itam la muy def alaam na sañu ko ab julli sañ te liggéey ci usine boo xam ne dañ ci liggéey ñoll bu ko defee alal jëm ci jëlee alal ju alaam lay doon bu ko lekkee tam lekk na lu alaam bokk na ci li yoonte yonte waxoon ne lépp nañ leen tam mooy ku koy jëfandikoo di ko euh, naan wala ku koy transporter wala ku koy jaay ak ñeneen yu bari daal yoo xam ne rek seen jëf day xaw a jëfandikoo ñollu yonente bi alayhi salaatu salaam na yàlla rëbb na leen te lépp luy war a ak rëbbu yàlla rek ab jullit da a moytu kon daal lu mu bëgg a bëgg a liggéey rek na gëm yàlla te xam ne bu gëstoo rek te gëm yàlla jiital gëm yàlla xam ne wërsëgu yàlla tudd ci moom dana ko am bu ca boolee loola gëm yàlla rek mën naa am bu gëstoo dana gis beneen ngi liggéey boo xam ne moo gën a sell moo gën a dal xelam wallaahu al-muwaffiq as-sawaab jërëjëf sëriñ bi kii mu ne moom lan mooy xeeti kafaara yi waaw sëriñ Cheikh da kafaara ay xaat yu bare bare la ndax kafaara mooy ku def ak mooy yàlla sàngam tuub ko ba noppi nag ñu ne defal daan sàngam ngir tuube ko daan boobu dañu tudde kafaara bokk na ci xeeti mooy yàlla yi nga xam ne ku ko def dangaa war a kafaara mooy ku ku rey nit te teyoo ko kooku dangay ngay walla wala ku rey nit te tay ko te teñ teñ baal la kooku tam da ngay kafaara boppam la am bokk na ci xeetu kafaay tam li ñu wax zihaar zihaar ku ko def ak sa soxna xeetu euh, wax la yoo xam ne lu jiitu lislaam dañ ko daan wax nit ñi dañ ko daan wax seeni soxna di leen nuróoleeg seeni waajur bu jigéen alxaan ñëw tere leen ko ne bu ko kenn defati ku ko def nag bala ngaa am sañ sañ àndaat ak sa soxna faw nga def kafaara bokk na ci kafaara itam boo giñee giñ loo xam ne nii la nga waatoon ne danga ko def defoo ko boobaa tam kafaaratul yamin lañ koy wooyee mooy kafaaree na ci tam yi nga xam ne moo ëpp lu may am xëy na mooy kafaar ak dog ci weeru koor tay ko boo dogee ci weeru koor tay ko da ngay kafaara euh, moom kafaara moom mi ngi ah, ñetti anam la ñetti anam nga ci tànn mooy nga jël aw ñam leeral ci lu mat juróom benn fukki miskin itaamu sittiina miskinan juróom benn fukki mm, miskin yoo xam ne xëy na am nañu ak ñàkk nga leer leen loolu ci xeeti kafaara yi ku dog ci bisub ramadaan ba cëgu ramadaan tey ko loolu ci kafaaraam yi la bokk boo mënul loolu te fuqahaawul maaliki yi ñoom loolu moo leen gënal itaam mooy leele moo gën boo mënta leele nag nga woor ñaari weer yu sësaloo bu koor gi jeexee ramadaan jeexee nga tànn ñaari weer yoo xam ne nag leen di woor sësal leen ngir benn fan boobee nga dogal boo mënul loolu lépp ba jamono yi jaam di am nga jël ab jaam goreel ko kon loolu mooy kafaaral ku dog ci weeru koor yeneen kafaara itam eh, dañ ko tudd ci téere yi eh, kenn ku ne ak lenn lu ne ak kafaara guñ ko war a defal wallaahul muwaffiq lis-sawaab kii mu ne lan mooy àtteeb koo xam dafa takk jigéen na ko bu ñu àggee ci waxtu sàngam ma fase la waaw sëriñ Cheikh loolu la ñu tuddee nikaaxul mutaati nikaaxul mutaati bokk na ci xeeti sëy yi nga xam ne dafa alaam te bu ñu ko defee dañ ko war a dindi mooy takk jigéen wutal ko gàpp gàpp bi moo xam gàtt na wala gudd na lu mën a doon rek bu ñu ko wutal gàtt doon te dañu fukki fukki at la sëy bi sax bu ñu ko sàttantee rek nga xam ne nga ko sàttante jigéen ji yow góor gi bi nga takk soxna si nga sàttante moom ne ko daf sàngam bu agsee sëy ca lay yam boobu sëy moom dañ koy firi ca saasa dañ koy firi buñ ko buñ ko teelee dañ koy firi balaa dara xew buñ ko yëgee itam ba ak jaxasoo am seen diggante du tee ñu firi ko bokk na ci nga xam daal yonent bi sallallahu alayhi ko araamaloon fuqaawu eh, ahlu sunna wal jamaa tam dañ koo araamal kon noonu mu wax ne takk jigéen eh, ba eh, wax ko ne ko wax waxtu sàngam mu agsee mu bàyyi ko loolu daganut moo xam waxtu ko dig wu jege la wala wu sori la wallaahu al-muwaffiq lis-sawaab kii mu ne ndax dagan na ñuy boole ay ngir yu wuute ate boo xam dangay jël fii jël fee jël fee doo tënku ci benn ngir waaw loolu talfiix lañ koy wax ci fiq mooy al moom dafa bari masaahib bu dee yi ñu xam léegi rek al masaahibul arbaa mooy ñeenti ngir yi nga xam ne moom ahlu sunna wal jamaa xam am na yenn masaahib yoo xam ne am na ba léegi waaye xëy na dañu tusaaroowul euh, li ñuy wax talfiix na mooy nga jël ab àtte ci masab bële jël ci fee jël ci fële dajale ngir bëgg a àtte mel ni mbir loolu moom li ci borom xam-xam yi wax mooy mi ngi dagal na ci genn anam rek mooy fekkee maslaxa am na ci mooy njariñ lu wér-wér am na ci loo xam ne nii eh, ka koy def jubluwu ca fo jubluwu ca tam bëgg a diine rek xam daal am na xikma wala aajo ju taxaw joo xam ne nii noonu rek moo ko mën a lijjanti kon sañis naa def loolu talfiix mooy att bi kii lam ca wax nga jël ko jël la koy wax nga dajal leen mu nekk benn att Euh, dañ cee sàtt ay sàtt yu bare bari yoo xam ne balaa bala nga ko sañ sañ faw rek day daje nga doo ko jaa ma def mooy euh, bu mu nekk àtte loolee ngay talfiix bu ca fexe ba génn ci àtte boo xam ne day wuuteeg ijma ijma mooy li nga xam ne borom xam yëpp da dëppoo nañ ne lii daa dagan wala daa araam kon loo mën a talfiix talfiix moom àtte ba ngay génn fexeel ba bu mu juyoog àtte boobu nga xam ne ijma am na ci te it doon loo talfiix talfiix na nga fexe ba dañuy wax maqaay si du saran mooy lislaam moom atte bu mu atte rek wala li mu indi daa am ay jublukaay ay jublukaay yoo xam ne moo tax mu indi ko na nga fexe ba loola ngay tal talfeex di ci indi bi atte bu mu jiyooyu loola masalan bokk na ci maqaasidu saran xifsu nasli mooy sàmm am ngirte maanaam doom yi nga xam ne ñooy ñooy judd ñu juddoo ci lu leer loolu nag am na nit nit di talfiixe nit di dal talfiixe ba takk soxna mën naa am maqsad boobu muy jublukaay boobu dootu ci am euh, am na borom xam-xam bu koy misaal ci koo xam da ngaa takkoon soxna ci sukkandiku ci euh, bañ ko wutal seere bañ ko wutal seere ndax fiqhul maliki mën ngaa takk soxna doomi seere la ñu bëgg mooy bala ngaa wéete ak moom mu wut seere waaye fañ koy fase moom ba mu wuti seere tam sëy ba teew wér na waaye bala ngaa wéete soxna si moom faaw ñu seere ko. kon bu waa ji nee damay takk soxna si waaye du ma ko wutal seere moom xëy na jëfandikoo na mbirum Malick foofu ñu ne ko ah Malick moom daf na wax ne kuy takk soxna faaw nga kilifa gu góor mu fas sëy mu ne man foofu damay jëfandikoo ngirum xanafiya ndax ñoom wax nañ ne sañ ngaa takk soxna te du am kilifa wala jigéen doon kilifa ñu ne ko ah waaw léegi de moom xanafiya la moom Malick yi ñoo ñëpp ànd nañ ci ne kuy takk soxna faaw nga joxe can mu ne foofu damay jëfandikoo asaafiyan yi ndax moom wax na ne mën ngaa takk soxna doo ko cax ak can loolu xeetu talfiix boobu boo ko defee day dangay dal mujj nag la islaam sampoon ci kuy takk soxna bëggoon ko ca muy sàmm mbir mi ba nga xam ne nii kenn du ko fayee day mel ne yow maqsad boobu yooyoo nga ak moom lu mel noonu daal bu ca naree am moom talfiix du dagan mooy jël fee jël fële ba génn ci àtte waaye nag fekkee maslaha bu wér-wér taxaw na xam ne buñ sukkandiku ci benn masab rek mën naa duñ ko mën lijjanti kon waris naa mën a jël ci masab bu nekk lam ca wax ñu dajale ko fexe ba lijjanti loole ndax ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ci ci dëgg lañ nekk ci dëgg lañ nekk koo ci topp rek topp nga dëgg kon nag boo fexee ba dajale seen wax ci anam goo xam ne du yooyoog ni sariyaan santaane loolu àtte ba nga ci sukkandikoo am nañu wax ne dagan na am na nañ wax ne nag moom bañ koo def moo gën ak lu mën a xew rek sukkandiku ci benn masab àtte booy génn rek def ko ci benn masab bi lu ci mës ba wax nga nga def ko te loolu nag moo gën a tënku moo gën a tënku ndax buñ bàyyee ubbee bunt boobu mu ubbeeku rek bunt la boo xam ne mën naa jaxase yëf yi ba nga xam daanaka kenn dut xam yëf yi nu muy demeeti ndax daanaka masab bu bu nekk li ci ëpp seeni masaayil duñ ci déggoo kii danaan dagan nag kenn daganut boo toppee loolu nag di def talxi talfiq mën ngaa dema dem ba nga xam ne nga indi meen masab bu bees wala nga indi wax joo xam ne du sukkandikootu ci lislaam wallaahu al muwaffiq lis sawaab kii mu ne lan moo wutale li tuddee tuddee jamu taqdim ak jamu taaxiir ak benn bu nekk nuñ koy defee waaw sëriñ Seex da jam mooy boole ñaari julli yoo xam ne nii dañoo bokk waxtu loolu dagan na dagan na ci sharia nga boole ñaari julli yu bokk waxtu rawatina boo amee ngànt façon xeet xeet liñ leen di boole na ñaari xeet la mooy jàmm boo xam ne dañoo taqdim taqdim bi mooy jiital mooy julli gii teew danga koy julli boo noppee dal ci sa sa liggéey ñëwagut masalan tisbaar ak takkusaan waxtu tisbaar jot na nga daal di julli tisbaar bi nga sëlmalee nga takki takkusaan saa si loolu jàmm taqdim la lañ koy tuddee am na lu koy lu koy tax mu dagan am na suróor yoo xam ne moo cay daje bu ca dajee man nga koo def loolu mooy jàmm taqdim mooy jàmm boo xam ne ngaa jiital julli gi ci waxtoom jàmmu taaxir mooy dangaa ngaa yeexe julli ku njëkk gi da ko yeexe ba waxtu julli wa ñaareelu dugg nga doo ko def loolu tam am na sàrt yoo xam ne bu dajee ci jëmm ji sañ na koo def am naa yaakaar nag ku teewloon waxtaan wi ñu fi defoon ci fan yii te docteur Abdoul Ahad Sané defoon ko ci dars boobu lañ jëloon dars boobu lañ jëloon muy aljam wal xasul fi salaat ku ca bëgg gën luy am lu yaatu sax boo delloo fa ba da nga ko wala wala faram-fànce na ko ci faram-fànce gu yaatoo yaatu gu leer ala kulli xaal daal jamaxu moom am na cosaan ci sariya muy fiq mooy boole ñaari julli yu bokk waxtu am na cosaan boobaa doo ci am bàkkaar boo ko defee bu fekkee sàttoon sàmmonte nga ak sàtt yi nga xam ne moo moo koy waral wallaahul muwaffiq li sawaab kii mu ne baatub sëriñ nan la ko sufiyank ki déggee maanaam nuñ koy tekkee waaw baatub acheikhu da muy ab sëriñ ci sufiyanke yi te buñ dellu soo ci suñu sëriñ Seexuna Alxadim radiallahu taala anhu li mu ko firee mooy al mursid ku lay gindi ku lay teg ci yoon ku lay teg ci yoon loolu la tudde ab cheikhu koo xam ne day tarbiya day tarxiya am na bay dum ci indi sax nga xam ne ay baydi yu bari la waaye fa mu ko daaneele mooy li anna man adama cheikhan mursida fa sayquhu cheytaanu xaysu xasada nee koo xam ne amoo sëriñ bu lay gindi du la jubal day jàppal na seytaane mooy sa mooy sa njiit moo lay gindi buñ delloo ci mbindi sëriñ bi nag ni mu melale ab sëriñ ay melo ay melo la yoo xam ne mooy daje ci nit mu door a matub sëriñ bokk na ci la mu ci wax mu doon koo xam ne day gindee lay jubal teg ci yoon bokk na ci la ci wax moo ko xam ne dalay ju jubbanti di la gindi te teg ko ci xam-xam xam-xamum sariya bu leer xam xamul lislaam ba noppi nag kuy jaamu yàlla nga di ko mën a ci jaamu yàlla googee wax na itam day nekk ko xam yàlla wax na itam day nekk ko ku laabiire koo xam ne dalee koo xam ne nii bu la gisee ngay nar a dugg ci loo xam ne dañ la koo tere mën la koo mën la koo xamal ba nga maytu ko kon daal loolu ci ab sayxu bu ñu waxee dëgg-dëgg mooy ab sëriñ sëriñ bi nga xam ne moom moom nga war a jox sa mbir daal bàyyee ko sa mbir lépp mu lay jubbanti yooyu sart war na caa mu door a mat ab sëriñ dëgg-dëgg wallaahul mu ne ndax dagan na ci imaam bi su dee jullee ab néew mu ñaanal néew bi ñaan gum ko jagleel goo xam ne xëy na du bokk ak ñi muy ñaanal yeneen ci des waaw sëriñ Cheikh da ñaanal ab néew moom ci julleeg néew amut ñaan guñ wax gu ràññiku goo xam dañ naan mënta ñàkk bari na ñaan yoo xam daal ñëw na ci xëy nag ci téere fiq yi bokk nañ wax ne ñaan gi ñu rafet gën a rafetlu mooy ñaan googu ñuy askane Abu Hurayrata ne moo ko déggoon yéen di saa sallam di ko di ko di ko ñaane muy ñaan goo xam da nga ko fekk ci risaala ak yeneen téere fiq yi mu tàmbalee ci allahu boo ginnaaw boo defee boo sante yàlla julli ci yonent bi saa nga teg ca allahuma innu abduk bu dee góor allahuma innu abduka wam nu abdika wam nu amatika ba ñaan nga jeex muy ñaan koo xam ne guddul lool ku dellu ci téere risaala wala téere fiq yi da ko ci fekk googu ñaan daal bokk na ci gin yi ñu rafetlu ci kuy jullee néew mu ñaane ko waaye wax nañ ne sax boo yemoon ci allahuma axfir ixfir lahu warxamhu bu dee góor bu dee jigéen nga ne allahuma ixfir laha warxamha bu dee mbooloo tam nga indi damaayul jama yi boo yemoon ci loolu tam na loolu ci li ñu fii ci wolof mooy yàlla na leen jéggal te yërëm leen bu dee kenn yàlla na yàlla na ko jéggal te yërëm ko loolu daal mooy ñaan yi nga xam ne moo rot ci jullee néew waaye ni ko borom saala waxee amul ñaan goo xam ne dañ naan gii rek moo te ñàkk lépp loo ko ñaanal rek ci wetu wetu njéggal rek boo ko ñaan mën na ko jëfandikoo ci booy julleeb néew. Euh, kon laaj bi ñuy mujjee rek nga tëjaale mooy ndax imaam mën naa tudd. doom joo xam ne juddoowul ci ab sëy waaw loolu de gisuñu fenn fu ñu ko teree de ndax eh, tur bi moom daa bokk ci sunna tudd tudd gone ko juddu daa bokk ci sunna kon kooku nga xam ne xëy na xamuñu waajuróomu góor lu tee nag ma ne ko tudd bis bu juróom-ñaareel bu agsee ma ne su ko tudd te tuddee ko tur bu baax sax ndax bu yàggee bu màggee yàlla mën na koo dimbale ba tur bu baax yooyu ñu ko tànnal tax ko mu mu yàlla xiir ko jëf yu baax ndax moom ci ni ko ñu bari ci borom xam-xam waxe bàkkaar bi waajuram ñoo koy gàdd waaye moom xay na ci saahir gis ñu benn bàkkaar bi ñu ko mën a toppe ndax moom jëf ji moom xay na sabab lu ko waaye ña sabab jëf ji ñooña ñoom la yoon teg ay daan so moom moom juddoo nag waris na ko taxaw waris na ko taxaw te taxawaay bi mu ngi tàmbalee ci ñu utal ko utal ko tur bu tolloo ci ñu war koo yar tam ñu war ko ni yare gone yëpp teg ko ci yoon fexe ba encadré dugal ba nga xam ne bu màggee du nekk ab sàmba booy boo xam ne nii day jàpp dañ ko sàggan ba mu nekkee gone ndax xëy na li ñu xamul ay waajuram ndax bu ñu ko taxawoo jubbantiku mën naa tax bu doonee mag mu doon mag mu yéew moo xam ne sax lañ doon séenu ci ku juddoo ci lu mel noonu mu lay dal xëy na mën na ko bañ dal wallaahul muwaffiq li sawaab euh, jërëjëf sëriñ bi ñu sant la ci turu daayira Muxaddamatul Xidma kon ñu bàyyi nga tàggoo rek di sant ci waxtaan yi nga xamante moom la ñuy taxawal ci barab yi moo xam ay bind la moo xam ay muxaadaraat la moo xam ay laajteeki tontu la lu ci nekk rek ay njariñ ci yoo xam ne ñu ngi ñaan suñu borom defal ñu ñu mën koo jariñoo te sëriñ bi nga xam ne moo tax ñuy liggéey liggéey bii rek yàlla dajal nañ ci ngërëmam ñu am ci ngërëmam ci li mu bëggoon xam-xam yaatu ci dëkk bi saaroo fi yàlla boo lañ ci ñuy taxawee ca loolee di santaat daayira bu baax a baax ci taxawaay bi ñu taxaw ci weeru koor yi ak lu ak liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal sëriñ bi ci barabu sell bi li ñaan yàlla dool leen ci dimbal yàlla gën leen dëgëral képp ku leen di jàppale tam suñu borom gën laa defal ndimbal képp koo xam ne tam xay na mosoo cee jàpp tam nga bàyyi xel ne liggéeyub lislaam la liggéeyub sëriñ bi la nga bàyyi ko xel di ci jàpp te xam ne lu ci waay def rek du du lu sànk insha allahu taala di dellu di ñaanal kilifa gu mag xam Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla sàmmal ñu ko bàyyi ko suñ kanam ak mboolem jëwri nekk ci ginnaawam dañuy yàgg seen ginnaaw yàgg liggéeyal sëñ bi ba liggéey bi ñu jëbal ko suñuy sët ak suñuy sëtaat subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil jërëjëf sëriñ bi kon ñu ngi lay delluwaat di la sant di ñaan suñu borom mu dëgëral te kàttanal la di sant itam ñi nga xam ñoo doon topp waxtaan wi ci biir jumaa ji ci situ daayira bi ak mboolem ñi nga xam ñu ngi ko doon topp ci yeneen jumtukaay kon suba ñi ngi fas yéene waxtaanee lu aju ci fase atte yim am ak jeexit yim am